c'est la référence. Euh, kaddu gi euh, Diado fii ci studio Alioune euh, Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh Imam Assane Cissé mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru wolof yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës. li gën a ci xibaar yi nag bokk na ca gannaaw génnuk àddinaam moom missionnaire ba comme nag na ko ay jegeñaaleem tuddee moom imam Alioune Badara Ndao niki démb nag gunge nañu ko rek ca këram gu mujj muy nak ca sëg ya ca ngaan. doom jege ñaale taalibe xarit am di jàmm ñëpp ko jooy waaye itam nag seede yi ah, benn la woon mooy ne imaam jàmbaarul islam la woon te it naka ku baaxoon la seede yooyu yëpp nag daañu ko topp ak Cheikh Babacar Dieng ci jamono joo xamee ne ñoo ngi ah, dëgmal xew-xew diine bi di màggalu ko Touba gi association nationale des cavaliers de la sécurité routière du Sénégal ñoom nag ña ngay alerté maanaam daal ña artoo ko dànkaafu sëfër si ngir nak ñu daw ndànk dal ndànk bañ a te it nag nguur gi jël ay matukaayam ah, ci lu soxal ñàkkum kaaraange gi ci kaw ah, tali bi loole itam bu ngeen ñu toppee daañu ca dégg noa bi yaay honorable député Pape Djibril Fall ah, gannaaw nag génnam bu njëkk ci a tabbeef gi Kaolack nag la ko jagleeloon visite boobee nag la ko wundoon kon weesuwul lëñ bëtu jafe-jafe yi nga xamee ne askan wi ñu ngi koy a jiwaan bi ay farandoom ñoo ca addu loolee itam ñu ko topp ak Cheikh Tidiane Diagne bu li lépp yembe mbokk yi daañu tàggat yaram jeexalee ko journalu académia journalu màggal geeg li gën a fës ci yéene kaay yi Serigne Moussa Kane moo ci xarala gi Frame Fadje gi bu nees ki lay doon. Le journal Ngone Ndiaye ci euh, kaddu gi euh, imaam Alioune euh, Badara Ndaw jëbal nañu ko nag boromam ni ki démb rek ca sëg ya ca ngaan lu ni mel nag mi ngi amoon ci teewaayu mbooloo mu takko takku moom nag imaam dundu na rek lu tollook juróom-benn fukki at ak ñaar waaye nag liggéey na lu rëy rëy ci wàllu diine ba tax na nag njaboot gi xarit taalibe jege ñaaleeg am di jàmm lañu ko seedeel yëpp benn la bi ñu yëgee mbir mi ba ci nañu koy gunge ca këru dëgg ga Cheikh Ababacar Dieng. dëkkandoor xarit kóllëre ñëpp wutal si daluwaay bi nekk ci Touba Kaolack excitation seede yi nag du jóge ko ci boor bu ne ñi ko xamoon ñëpp mbaax lañu ko xamal imaam Ibrahima Cissé mooy imaamu raati bu jalañ ci jumaa ji ñi dàkkantelee jumaa bambara yi lu mu nekk mu nga ca ragalu ca kenn gisu ca kenn ku dul yàlla fa dëggu woon digganteem ak boppam diggante ak boromam diggante ak nit boobu mooy jikko bi ma gën a marqué ci ustaas nit ku dëggu lu mu nekkul nekku ci waaye mu nga ca ci ay kàddu seedeem ne imaam Alioune Badara daw kay ñitti jamono la woon waaye dund mag ñu baax ñi ci jihaad la yoroon pàkk bii mu fàkk doon dundal firnde la ci ne sempeet génn ca nit ña dem beddeeku ca àll ba sañ ci dëkkam gis nga fi ñu nekk nii imaam moo ko sañ léegi la yëf yi xumb nga gis fi ay étage ak loolu mais loolu amu fi woon bi muy ñëw fi dara amu fi jamono yooyu soo fi bëggoon ñëw ci imaam da ngay génn kaw la complètement dugg ci àll bi bu fekkee oto nga yore nga dugg ci àll bi daw bu fekkee vélo nga yore jakarta nga dugg ci àll bi daw kese mu ne condoomu ak i dongoom booba tabax yi yëpp moom ci boppam sax dëkkul woon ci tabax jàkka ji ci boppam mbaarum ga ci lañ doon julle fii ñëw naa dudul benn yoon du ñaari yoon ñu ànd julli fii ci mbaarum ga tax muy bay taalibe yi di yalwaan muy bay di dunde loolu ci la ma sa nekk dëdd woon àdduna la beneen boroom xam-xam indi beneen seede maa ngi tudd Oustaz Youssouf Ka di professeur institut islamique supérieur mu ne imaam Alioune Badara Ndaw kay moo nuñ tënk ci dundam rekk ne da doon dund ngir jaami yàlla yi bakkan ki gën ci mbindeef mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam dee na kon dee nekkul ayib ayib mooy dee ci jubati loolu mooy ayib oustaz Aliou Ndaw dundam neenul nekkuloon di dund pour boppam ba dan mu doon dund pour ñëpp bi dalil mboolem jikko yu rafet diggante nit ak nit oustaz am na jikko yu rafet diggante nit ak boromam oustaz amoon na dund jikko bu rafet diggante nit ak nit mooy ñetti mbir keneen ku ko jege woon lool ba sax defoon ko royukaay moo di Mouhamad Sow moom mi jàpp ne kilifa diine gi génn àdduna du ku ñu ku ñu war a ñee la ndax dafa wàcce ci waar wi gannaaw bu mu rafetalee mbayeef nangu naa ne li ko waroon ci waar bi moom bay na ko xam nga lislaam moom da ngay dem bi egg fa nga egg rek nga yem fa yàlla indi ñi leen ñuy mottali waaye li ko waroon xoolal dëkk bi fii moo ko sanc def fi juma def fi école def fi daara yar fi ay ndong di fi jàngale alquran di fi yare xoolal nu meer war ay junnee junnee ñi jaar nañ fii ci barab bi ñiy jàng xam-xam ñiy jàng alquran ñiy jàng xeetu xam-xam ne xeetu yar bu ne mission bi nga xam ne moom la ko borom bi jalla waala dénkoon bay na ci waaram ba xëy imaam Alioune Badara Ndao génn àdduna altine ci guddi ba seddi talaata ci hôpital Fann ci ndakaaru ci service bi ñu dippee cardiologie njalosi ko ci saalum gu mu fekk baax bi muy génn àdduna mu ngi am juróom-benn fukki at ak ñaar ndax mu ngi juddu ci atum 1960 ci dëkk kaw bi ñuy wax Ndaalaan Malick gi ci Gandiaye. di ko euh, jaajëfal lu euh, bare bari moom euh, Cheikh Babacar Dieng dañuy des ba tey ca kàddu ya seede ay yooyee kenn ci ay kóllëreem dip jege ñaaleem di wuyoo Ahmed Kébé Lo moom nag la mu wax mooy ne bi mu yëgee euh, xibaar bi diisoon na lool métti woon na lool ndax tàqalikoo gu euh, becce gi waaye nag ànd ak lépp rek nangu nañu dogalu pa borom bi ay kàddooma Cheikh Babacar Dieng la ko baaxee. waaw mu dal ci suba gi avant may dem centre ba lañ ma daal ne ma oustaz génn na àdduna ma ne leen kañ génn àdduna mu ñu ne ci guddi gi daal la génn àdduna. Euh, loo ñuy wax ci moom. man daal xam naa li may njëkk a wax rek. li yonent bi waxoon bi doomam jooju Ibrahima génnee àdduna dafa wax keroog wax ju daw yaram mu ne innal ayna tat yadmau walxalba yaxzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahimu la mahzunun yonent bi dafa wax keroog ne ronkoñ yaa ngi tuuru xol bi itam neexul waaye duñu wax mukk lu dul lu suñ borom gërëm loolu la waxoon ne yow ibrahima nag teqalikoo gi ñu teqalikoo yow nekk lu neex ci suñu xol waaye ñun itam loolu la ñu wax tey ci Oustaz Aliou ndaw ronkoñ yaa ngi wadd xol bi neexul waaye duñu wax lu dul lu gërëm lu suñu borom ndax xam nañ ne yàlla mooy dogal te yàlla lu mu dogal noonu la teqalikoo gi wax dëgg yàlla ko xam Oustaz Ndao xawoon ko jege tuuti ku mel noonu boo teqalikoog moom sa xol du neex waaye nag ñu ngi koy jaale xeet wi yëpp di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moom dafa doon ci ab déedéet ngi ne ndax Ndakaaru la génne àdduna waaw yi moom dafa feewaroon ñu bëri ñu ngi naan sax moom depuis mu jógee ca nattu ba ba tey daanaka yaram bi jagut waaw wax dëgg yàlla léeg-léeg mu kii rek xëy na bi mu fi jógee ca nattu ba xëy na feebaru na feebaru boo xam da koy sonal waaye nag léeg-léeg mu wér léeg-léeg yaram yi sooxe waaw mais temps yi daal moom la ko affaire bi gën a sonal incha allah kooku moom liggéeyu yàlla jëmbatoon incha allahu yaakaar nañ ni liggéey boobu dana gën a jëm kanam incha allah euh, loolu ci loxol yàlla la ne te yàlla moom xam na ni muy doxalee mbiram euh, kii di euh, Mouhamed Diop moom itam nag di yarub imam Alioune Badara Ndao waaye itam nag dib taalibeem moom nag seede na rek ci imam ca mbaax nga ak nitu yàlla ga mu doonoon lu mooy loolu itam mu daal di fàttaliku nag guddeem bu njëkk ca kanam imam Mouhamed Diop yokku ca di wax ne Sénégal yëpp ñàkk góor yàlla gu sell googee ay kàddoom ak Cheikh Babacar ndax lii moom xibaar yi bu ñu ma ko yëgalee sax man dama féetee kaw nee naa naa daal man benn gaañu la ma métti métti gu mel nii mooy keroog bu ma ñàkkee Serigne Mbaye la wax guddi googu métti na ci man lool xibaar bi bu mu ñëwee ci man noonu la mel ci man ba tax na lu tax nag ma wax loolu mooy ne gannaaw yàlla bu ma xamee dara bay mën a ñëw fii Serigne Mbaye la wala nga xam ne nag tey moo tax fépp fu ma dugg rek fépp fu ma dem rek ñu jox ma micro ne ma waxal kooku mooy Imam Alioune Badara Ndao tey moom lañ ñàkk muy góor gu baax bëgg xam-xam ku oyof rawant na yéen ñiy wax ak man ni sax ragal naa ne am na lu ngeen xam ci moom ku ñëw ci place bu mu dëkk ak nu ngay déggee turam soo duggee néegam sa yaram day daw man mii di wax ak yéen sama lal la la dundam lépp lépp lépp lépp lépp ci lislaam la ko def dundam lépp ci jàngale ak jàngale la ko def ay tool la yoroon di bay di dundee yaakaarul lenn mënoon naa def nu nit ñi di def di uuti ay financement dugg fu ne dem fu ne waa Imam Alioune Badara Ndao yow bu la xamee sax sàkkuwut ci yow nga jox ko ñëwee moo lay jox ñun taalib yu mu boppam bu ñëwee ziyaare ko da ngay a dem mu bëgg a ci moom mhm. loo gën a fàttaliku a ci moom a mooy keroog buñ may indi may wàcc ci daara ji keroog bu may ñëw ca tool ya laa ko fekk keroog bis bu ma njëkk ñëw maa ngi ñëw diggante timis ak ma ñëw fekk ko ca tool ya mu dalañ waaye bu ma ñëwee dàll yi ma ko fekk mu ànd ak nit ñi yore arrosoir yi di roose man ñun ñi teg ñu ci ron mango bi ñu toog buñ toogee tuuti seen ko muy ñëw ak dàll yi ak num solo buñ ne ma kii mooy sëriñ man dama ne déedéet waaye nag melokaan bu mu yor boo ko jàkk rek xam ne kii nitu yàlla la boo ko jàkk xam ne kii lañ lay wax keroog guddi gu ma njëkk am ci moom foofu laa xam ne fii ñu ma indi nii de fu ma bëggoon a dem sant naa yàlla bu ma agsee fii waaye daal euh, lu ñu mën a seede ci la yéen 90 point 1. ngeen ñuy euh, toppandi euh, ba tey nag ci euh, juróom-ñeent fukk yu tombal benn su ko defee itam ñu wey ci xibaar yi daal di àddu rek jëmale ko ci xew-xew diine yi jullik ñaari rakk ya ci diwaanu ndax géej loolee nag ay symbole yu bare bari rek la daal di làq maanaam daal ay junjee ki tegtal loolee nag ko xamle mooy sëriñ Maam Moor Mbàkke Murtada moom ma jiite woon julli ga ca bureau ba ca Ndar ñu dem ci diwaanu ndax géej fekk ji fa baax a jóp mbooloo mu takk jóge ci barab yi fasantikoo la ñu amal màgg ak ñaari rakka yi file ci diwaanu ndar géej ci njiitalal sëriñ Mamor Mbàkke Murtada bi juróomi waxtu di jot lañu tàmbali waxtaan wi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Ahmed Fall njiitu kuréelu ñaari rakka yi tatagal gan yi dikkaat bu baax ci jëf yu am solo yu sëriñ Mamor Mbàkke Murtada di jëf ci réew mi dama leen dugal naka mu daaneel rek la sëriñ bi daal di jël kàddu xam le ne julli ñaari rakka rek nekkul lu leen andi ci diwaanu Ndar waaye la ca gannaaw lépp mooy symbole ba. bu fekkoon ne julli ñaari rakka rek kon de man de bu wutul ci kër Martin laa koy jullee yaa ibadi ina ardi wasi'atun fa iyaaya fa'budu firi rek fu suuf yàlla am suuf yépp moo ko moom waaye li muy firi fii loolu moo yëkkati nit ñi te ñu bari ci symbole ci lislaam xam nañ ko li fi amoon bari na lool loo xam ne lislaam daf ko fa fekk yàlla ne leen def leen ko jaamu ñu def ko ci ndigalam bu boobaa loolu digal lii tamit li ñuy màggal mooy loo xam ne ndamul lislaam la te ak doyadil loo xam ne mënoon na fa jaaree mu am Cheikhul Khadim ci Ahmad Bamba Mbàkke li mu namoon ci julli ñaari ràkka fi la ci diwaanu Ndargéej jàkkaarloog àdduna wërngal këpp bëral leen ne yëf yëf yi yàlla dong la dafa doon wone ne yàlla rek la te yàlla rek nag la loolee mu defit nag mboolem ñim ko seqaloon amu ci kenn ku ko ca wax lu dul jàpp ne ñoom la ko defal ñoom la siggil moom sëriñ Mamor Mbàkke Murtada daal di xamle ne ne jullit ñëpp benn lañ nit ñi nañu wattandiku bu baax ci këri diine yi ak wujje nekku fi par parloo nekku fi damay wax ne sax tudd kër gi tudd kër gi la sax xew yi nit ñi tëlatuñ loolu màggal ñaari rakkay ren fanweer ak màggal 18 looloo tax cant rek boole kook tàllal loxo borom bi ñu di ko def nag ci weer bi di weeru safar ci la ñuy def màggalu Tuuba ñëpp maase ci li gën a siiw ci sëñ Tuuba deneen nañ ko santale am na nag beneen wax boo xam ne du loolu waaye ñun ci wax yooyu yëpp biñ ci gën a déglu wala ñu gën noo dugg mooy bi nga xam ne mun nañ ko ko santale la nan ngay ñaane ne cant may ma genn cant goo xam ne doo ko may kenn ci sama xeet ñi ñëw ci sama ginnaaw kon foofu naka mu daanelee ay kàddoom moom sëriñ Mamor Mbacke Mourtada ci la jubale bureau gouverneur jiite julli tàkkusaan gi mbooloo mi lépp topp ci gannaawam. nes tut ñu daldi di sëlmal xàll yi wër bayandar lépp xiinu baay faale di jolli Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop. Bara xam nga ne itam ne ña nga dëgmal rek màggalu ko gi bu lii di màggal gi wéyee nag ak lañ ca war a jël yëpp ni ay matukaay bokk moomeel yeeg nguur gi itam nak war nañoo taxawaat tem rek ci ay dogal yu fiy jëlee ñàkkum kaaraange gi ci kaw tali bi waaye itam nag fexe rek ba l'accident gi daal di mën a jeex loolee nak mooy gis-gisu les cavaliers de la sécurité routière du Sénégal seen ak njiit moo ca doon waxtaan ak fan yi accident muy gën bëri ci Sénégal mu nekk tiitange si askan yi tax na association nationale des cavaliers de la sécurité routière bu Sénégal muy wax doy na Cheikh Tidiane Sarr mooy président bu association booba. accident yi encore une fois ñu ngi koy gis ci réew mi su ne yaa ngi xëy boo yeewoo yaa ngi dégg rajo baa ngi wax mu nekk lu doy waar lu métti loo xam ne njaqare ak tiis lay indi ci kër yi ci njaboot gi te askan gi mu nekk loo xam ne jafe-jafe la de la route moo xam yow mi dawal moo xam kii koy jëfandikoo waaye tamit ñuy wax ne la état du Sénégal moom mi a une fois mu dugal li nga xam ne moo nekk njàngalem sécurité routière ci biir école digg doomu yi jàppale bu ñu dugalee ba xale yi maîtriser ko dana bokk également luy saafara luy xeex bu baax a baax accident de la route waaye tamit ñu ngi ñaan également jur yi nga xam ñu ngi ci kaw tali ñu ngi ñaan mairie ñu dugal seen loxo baax a baax jur ni ñuy taxawaay ci kaw tali te yombal accident pour ñaax chauffeur yi ñu gën a seetuwaat seen oto yi balaa ñu départ loolu mun na aar accident yi noo euh, bi yaay jafe-jafe yu bari yooyee nga xamee ni itam ne moo laxasu rek ci kaaraange gi war a am ci kaw euh, tali bi loolu yëpp nag moom a njiital euh, cavalier ya di euh, Cheikh Tidiane Sarr càmbar na ko nag benn par benn xalaatal leen ay solution waaye itam daal dinay a amal Cheikh Tidiane Sarr yi amuñu làmp jafe-jafe la bis daw guddi état bi noo ko mën a aaye beneen bi ci également permis en point waruñ koo caaxaane lu ñu war a dëgmale lu ñu war a jëmmale ci réew mi ba kenn ku ne xam ne soo defee lii moo la cay fekk waaye tamit lu jëm ci wàllu visite technique état bi na seen oto yi ci service yi nga xam ne moom état bi reconnaître waaye tamit bu loolu weesoo tamit ñu ngi ñaan aussi chef de garage yi nañu jël tàgg seen chauffeur ci biir garage yi di jàngale code di ko rappeler parce que nafar dafa baax ci ay nit waaye tamit ñi nga xam ñoo jëfandikoo tali bi muy usagers yi ñoom tamit am nañ ci part de responsabilité waaye tamit ñu ngi rafetlu taxawaay bi nga xam ne nguur gi taxaw na ko jëm ci loolu nga xam

jumtuwaay yoo xam ne jumtuwaay gi leen rek la moo indi saafara jeexal accident daan ko far ko ci biir mi. jaajëf Cheikh Tidiane Sarr wàllu woto yooyee nag ca la ñuy des rek ca diwaanu Ziguinchor ak jamonoy nawet bi ñu nekk nii foofee nag borom woto ya jamono ji sonn nañu lool ndax ay paan yu am métti métti te loolee nag dara waralu ko lu dul ñàkk yoon yu baax ba tax na sax ñenn ca ñoom jamono ji nangootuñoo dem ci yenn quartier yaak yenn gox ya ci waxtu woowu nag loolee di xew itam mu mel ni ki nag ne mécanicien garagiste yi jaay euh, pièce su euh, woto ya ñoom nag yàkkam ci rek situation boobee jeex ndaxte itam seen ak ceeb ma nga cey euh, niin Mouhamed Sagna. taw baa ngi wëy fii ci diwaanu Ziguinchor mu nekk taw bi nga xamante ne mu ngi jural ay lorange ñenn ndaxte dawal oto wala moto jakarta ci yenn yoon commune bu Ziguinchor nekk na li nga xamante ne lu doy waar la ndaxte yoon yi yàqu nañu lool li ni mel ñu nemmeeku ko ca Kanjalan ca Djibok fi nga xamante ne askan askan wi ñoo ngi jànkoonte ay tolof tolof. ñun fii moom sonn nañu. sonn nañu yoon bi baaxul. depuis ñu ne Kandialan depuis ñu ne Djibock mosuñu am yoon bu baax. te surtout bu tawee nii sax yoon bi kenn du mën a ñibbi këram. yoon bi lépp baaxul. yoon bi ndox baa ngi yóbbu xale yi. ndox baa ngi yóbbu nit yi. mag yëpp ndox mu ngi leen di boo demee ville bi nga ne Kandialan dem. dañ lay kii foto sax dañu ne yàlla tere nga dem si àll boobu. te fii du àll jigéen soor fii rek dañu nañ du ñu dem. dawalkat oto yi nga xamante ne ci yoon yooyu la ñuy far di jaar saa su ne dañuy am ay panne mu nekk li nga xamante ne ñu ngi koy naqarlu. jafe-jafe yi nga am ci yoon bi dafa métti trop dafa métti. enquête ñu indil ay panne yu bëree bëri sax. bon yàggul yàggul parce bi mooy deuxième oto bi nga xam ne mi ngi dooroo yàqu. yoon bi moom mënuloo fi daw teeb doo panne c'est pas possible mënul nekk. waaye ci mécanicien garagiste yi ñoom ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte client yi dañ fay bëri lool. waaw waaw après la pluie dañuy am liggéey bëri liggéey bëri ci liggéey bi parce que oto yi moom xam nga rek yoon bon yi moom tamit moom day endommagé oto yi complètement quoi maanaam ay problème organe surtout ci nawet bi ñi ay problème moteur yu jël ndox ñu moteur bi yàqu yooyu yëpp dañ koy faral di liggéey ci période nawet quoi moom daal demande boobu xam ne moom bu ëpp ñuy am ci nawet bi mooy ci yooyu quoi maanaam yàqu-yàqu yi organe yi ak moteur yu jël ndox doon surtout fii Ziguinchor moom c'est fréquent ñu am ay am problème des fois kii bi day soli ndox réservoir bi mu am problème ratement. li mel tam ñu ne meeku ko ci jaaykat pièces oto yi ñoo ngi gis seen bopp ci waxtu nawet bi. jaay mi léegi lay gën a dox. waaw waxtu bi moom day waaw waxtu bi moom day dox day dox waaw day dox parce que euh, bi lañ nekk koo xam ne nawet bi moom piège day gaaw yàqu oto yi la fekk ñu xuus ci ndox mi dafa ñu xuusee maanaam seen bu jëlee ndox day gaaw yàqu lu demee nekk carnan yi ak yàqu même moteur yi sax parfois ci ndox ma moo tax dina tane daal par rapport ak noor bi quand même askan wi yeewoo ca ak ñoom seen ñoo ngi ñaax kilifa yi nekk ci municipalité bu Ziguinchor ñu mun leen dimbale ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkoonteel surtout ci waxtu nawet bii. maire bi ñu ngi koy ñaan na bàyyi xel ci ñun waa Kandialang Djibouck parce que boo xoolee commune Ziguinchor bi c'est seul Kandialang Djibouck moo xam ne amul benn yoon bu baax. ah municipalité bi moom wax dëgg yàlla yoon bi dañ ko war a defar waaw yoon bi dañ ko war a defar. laata nawet bi di jeex fii ci Ziguinchor mécanicien garagiste ñoom ñu ngi ci gis seen bopp bu baax a baax ndaxte seen liggéey moo ngi dox ci waxtu bi nga xamante ne yeneen dawalkat oto ñoo ngi ci jafe-jafe. Ziguinchor Mohamed Sagnan Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ngeen di euh, wéy euh, ba tey nag di fi taataane rek ay euh, xibaar yu wér te wóor daal di àdduna ko jëmale ko ci wàllu politique bi maa ngi leen ko doon junj gannaaw nag ba ñu génnee ci élection législative yi moom nag honorable député Papa Djibril Fall ñëwoon na rek fii ci diwaanu Kaolack bi ci ab tànki nemmeeku demoon na nag fu ci mel ni marché au poisson bu Kaolack bi armeelu kër Maalum ak yeneen ci ay barab lañu fa doon xool ak la ñu fa doon waxtaanee moom nag ba mu delloo la ko ay jegeñaaleem yeggee taskatu ah, xibaar yi Cheikh Tidiane Diagne. génnam bu njëkk région bu Kaolack la ko jagleel moom honorable député Pape Djibril Fall gannaaw bi ñu génnee ci élection législative yi ñëwoon na fi nag samedi bële ñu génn gannaaw gi nag bi mu delloo ca Ndakaaru la ay ñoñam fii ci Kaolack daal di amal janoo ko taskatu xibaar yi ngir wax ana lan la ñu jëlee ci visitu Pape Djibril Fall boobe ci marché au poisson bu Kaolack demoon nañu fa foofe nag wala que gestion la ñu fa ñaawlu Abdoulaye Cissé mooy coordonnateur mouvement d'heure fii am na ñu fay nekk di liggéey ñu man ñeenti weer seen salaire mënuñu koo jot ñiy liggéey ci marché bi mi ngi toll ci juróom benn fukk ak juróom ñoo xam ne weer bu jot si fond marché bi lañ leen di fayee te pourtant ñañ fay liggéey ñu leen di gis di leen tëg bët sa fukki nit la toll ak ñaar ñu ne kon am na 53 yoo xam ne ñi ngi koy fay te ñi ngi koy fay gisuñu leen xamuñu fi ñu nekk tant que nag defuñ benn audit par rapport à la gestion du marché au poisson ba situé responsabilité yi ñu xam seen xaalis bu ñu ko fan lay dem ci biir marché au poisson bu Kaolack ba léegi ñaawlu xamante ne dàq nañu ko directeur bi fi nekkoon gannaaw ñaxtu bi doxoon ci diggante mairie bu Kaolack ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mareyeur yi. yëg nañ ni yi dem nañ fa waaye solution bi nga xam ne indi nañ ko kat mooy dàq directeur ba fa nekkoon yaakaar naa directeur bi moom xëy na daa amul bàjjan moo tax ñu dàq ko waaye yaakaar naa ni liggéey bi waroon naa gën a sori lool toilette sax amuñu ko. armeer yu Kër Maalum Pape Djibril Fall ak ñooñam visité na ko fii nag melokaan bu doy waar la ko fekkee loole it ñooñu député bile nee na ñu ay pexe leen ci fas yéenee jël cimetière Kër Maalum dafa nekk ci état bu doy waar kenn yitteelu leen kenn faalewu leen honorable député bi mu ko yëgee ne leen dinaa fa ñëw xeex bi dina nekk sama xeex dinaa ko porté lépp lu ma mën bañ indi ci ay solution dinañ ko def courant sax amu fa ku am sa néew au delà de 18 heures doo mën a yóbbu suul ko foofu noonu cimetière bi aussi am problème bu ndox ndox mi dafa dem ba commencé di sulli néew yooyu maanaam dafa dem ba tey ndox mi dafa yéeg ci di biir bàmmeel yi autorité li nga xamante ak suuf gi ñoom ñooñu Pape Djibril Fall yi nag àddu nañu jëmale tamit ci taxawaayu quatorzième législature bu assemblée nationale te seen njiit di Pape Djibril Fall day woy di doon député du peuple. Cheikh Tidiane Diagne député du peuple boobee nag ñu bëgg a doon tax na itam nag ñu nar a layal képp ku ñu tooñ mbaa sax ku ñu bëgg a jaay doole ci wàllu suuf ñoom nag seen combat jamono ji ba ca gën a fës rek bokk na ca ñu ñu tuddee les impactés daal ñi Mbour Fatick Kaolack bi jaar Abdoulaye Cissé andi ci leeral ci micro Cheikh Tidiane Diagne. bi ñu demee dëkk bi nga xam ne mooy Fass Mamadou Sall nekk ci zone Diya kilifa yañ fa dajeel nga xam ne c'est des impactés de l'autoroute à péage bi nga xam ne moo jógee Mbour ñëw Kaolack impacté yooyu xamal nañ ñu ne ñoom kat seen suuf daanaka dañ leen a jaay doole jël ko ndaxte booy xool mètre carré bi fukki dërëm lañ leen si fay fukki dërëm lañ leen fay ci mètre carré bi da ngay gis kuñ am na góor guñ waxtaanal mu ne ma man li may benn hectare mën naa see génne un million ci benn at bi sama suuf si ñu jël tey def ko carrière nga xam ne fii fukki at dootuma ko mën a exploiter lenn lañ ma ci fay benn francs moom sax nee bi ñu koy jox naru woon jël xaalis bëgg ko woon jël dana leen woon ngeen bàyyil ma sama suuf moo ma gënaloon ngeen koy jël di ma fay francs alors que dafa am benn politique bu banque mondiale def muy la politique PO en matière de part li ñuy wax les plans d'action de réinstallation ñi nga xam ne ñooy victimes ñoo la ñuy boobu nga xam ne état bu Sénégal daf ko ratifié day wax ni en matière de réinstallation bu ñu koy def dañu war a partir toujours sur une base consensuelle amul lenn loo war a xam ni dañ ko war a imposer population bi même bu dee suuf boobu sax dafa nekk suufu domaine national bu fekkee am na ñu ko doon exploité rek dañu war a toog ba waxtaan ak ñoom même les critères d' aussi de manière consensuelle lañ ko war a fixé mais moo ko concrètement ay solution ba nga xamante nii baykat yi nii ñu leen léser bu fekkee mënta ñàkk parce ñoom li ñu wax dañ ne d'accord nañ autoroute à la duñ contre mukk utilité publique parce xam na ni lay jariñ heure bu fi amee dinañu jariñ waaye nag suñ tool yi aussi moom lañ am dañ ne fonctionnaire bi weer bu dee day dem banque ñu fay ko ñun nag amuñu lenn lu dul suñu ñaq te ñaq bi ñuy am ak li ñuy dundalee suñu njaboot ci suuf si lañ koy jëlee buñ ko jëlee jox ñu xaalis te lépp lu ci war a am ci ak leeral itam dina saisir ministère yi nga xam ne ñoom la concerné pour ñu mën si indi ay leeral yoo xamante ni kenn dootu ko laam-laamee. Abdoulaye Cissé euh, moomee nag ma nga doon àddu rek ci xeex ba ñuy euh, mëne jëmale ko nag ci ña nga xamee ne ñooy les impactés de l'autoroute Mbour Fatick Kaolack ci pàttali nag moom mooy le coordonnateur bu serviteurs yi fii ci euh, diwaan bi. xabaar yi bitim réew. Euh, bi ci réew euh, la ñu euh, jëm Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf soxna Ngoné xibaar bitim dañ koy doore ak njiitu réew bu Burkina Faso moom mi nga xamante ne moo ŋànk transition foofu ca réew bu Burkina Faso ginnaaw tukki ne mekk bi nga xamante na ko foofu ca Mali ci samedi fi nga xamante ni mooy réew bu Côte d'Ivoire li gënoon a fës ci tukki na ci rataxal diggante ñaari réew bi nga xamante ni moo ŋànk gouvernement foofu ci réew bu Côte di Alassane Ouattara xeex ak li nga xamante mooy wàllum terrorisme nag bokkoon na ci li gënoon a fës ci bi la dajee wante tamit koom-koom bi ci réew bu Afrique bokkoon na ci li gën a fës ci bi la dajee. xabaar yi bitim réew. Burkina Faso ba tey dañuy des wax ci benn attentat xamante jot na am foofu ca réew bu Burkina luy tolloog fanweer ak juróom doomu aadama jot ci ñàkk seen bakkan ñi réew bu Burkina Faso naam sax mbir mi lee ngurnumaa mu ngi ci def kémtu laay ngir ka xeex ak li nga xamante ni wàllum terrorisme wante teewul ne way muy Samba Boy ñoom ñu ngi way def seen ñaaw teefa ah, ci bile réew jot nañ nemeek luy toll ci bile attentat wax ci diggante ñaar réew di réew bu Mali ak réew bu Côte d'Ivoire ginnaaw ñeent fukk ak juróom benn soldaa yi nga xamante nii réew bu Mali téye woon nañ ci soldat ivoirien yi jot nañu bàyyi ñetti soldat nag ñu dellu seen réew wante nag luy tollook ñeent fukk ak juróom benni soldaa yoo xam ne des nañ foofu ci réew bu Mali naam sax lim bi ne dafa takk woon ba tollook ñeent fukk ak juróom-ñeent soldat yoo xamante ni dañ leen woon foofu ci réew bu Mali ci fukki fan ci weeru juillet bi ñu génn foofu ca Bamako ginnaaw kilifa yi nga xamante ñoo ŋànk réew bu Mali yi doon addu ni ñoom mu la bokk na ci mercenaires yi nga xamante ni dañu dugg seen réew ba tax ñu tegal leen loxo ci week-end bi ñu wees na jot nañ bàyyi ñetti doomu yoo xamante jot nañ dellu seen réew di Côte wante teewul ne ba tey lim bilee mu ngi tollook ñeent fukk ak juróom-benn soldat yoo xamante ni ay ivoiriens leen ñu téye leen foofu ca réew bu Mali xabaar yi bitim ni mooy réew wax ci yëngu-yëngu suuf bi nga xamante jot nañ ko fa nemmeeku ci altine bi ñuy génn juróomi fan ci weeru sàttumbar ci sud ouest bu réew bu Chine ñu jot fa yoo xamante ni jot nañ ñàkk seen bakkan fukk ak juróom-benn ñoo xamante ni ba tey mënuñ leen teg bët wante juróom fukki doomu aadama yoo ni jot nañu am ay gaañu gaañu yu métti yi lii mooy bilan bi nga xamante ni moom la jot a am ci yëngu-yëngu suuf yi nga xamante jot nañ ko nemmeeku foofu ci réew bu Chine rawatina fi nga xamante ni mooy sud ouest bu réew bu Chine jeexalee xibaari bitim ra ak réewu France wax ci li nga xamante ni mooy jàngoro bi di Covid mu mel ni lim jot na wàññeeku bu baax a baax naam sax jotoon nañu confiné yenn ci ay bërëb yoo xamante ñu ngi nekk foofu ci réew bu France ginnaaw bi nga xamante ni dañ doon nemmeeku ay doomu armée yoo xam ne dañ doon xaru ginnaaw bi leen euh, confiné ci atu bu mu mel ni lim wàññeeku na lool ginnaaw ci jéye yi nga xamante ni daan foofu ci a baax foofu ci réew bu ñi xamante ni ñoom lañ dénk wàllum wér-gi-yaram bi foofu ci France jël seen matukaay mat sëkk ngir kat aar askan bii di euh, Covid 19 jërëjëf sax na ngoone foofu la ñuy buree li nga xamante ni mooy xibaar bitim réew yi cant ak ngërëm ñeel na leen jaa ngeen jëf. xabaar yi bitim réew. bak euh, boobee kon euh, tàggat xam gi lay euh, yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokku auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak ki fi nekkoon ancien international français David Trezeguet xam ngeen ni coupe du mond bi yegsee dem ci diwaanu Ndakaaru ambassadeur u FIFA la nag démb bi coupe du monde bi yegsee nag dafa joxe ay kaddoom ci kanamu taskati xibaar yi ba daal di wax sax ni Sénégal France ci final coupe du monde loolu lay séntu David Trezeguet. merci à vous merci à vous c'est je euh, pense que waaw jàngeen jëfati dégg naa loolu yaakaar naa ni suñuy wax football nag supporters yi la neexul ba neexul nag fii nag da nga koy yëg bu baax a baax da nga yëg supporters yi. pour man nag du monde atum 1998 lu rëy la woon ci man gént la woon te xam ngeen ne àdduna sax gént la samay ñaar fukki at dañoo wane woon lu rëy te bëggoon ko nag ndam li moo taxoon gis ngeen fu mu mujjee te Sénégal nag loolu la wane woon ci Coupe d'Afrique weesu te dafay wéy ba léegi waaw. waaw waaw mënul ñàkk li ma wax rek sànq mooy gëm-gëm la te Sénégal ci coupe du monde bi ñu jëm joganteem yi dina am solo waaye yaakaar naa ne équipe bu Sénégal bi am na qualité yëpp ngir dem fu sore sore ci coupe du monde bi man daal maa leen di ñaanal ak sama réew France man sax li ma bëgg moom mooy final bi ñu am France Sénégal. a partir de là je vous souhaite même si la France à mon avis aussi mais pourquoi pas France Sénégal la finale. bëccëg bu njëkk Ligue des champions démb Dinamo Zagreb dafa bett Chelsea Chelsea daan ko benn bal ci dara Borussia Dortmund lapp lapp yi metti FC Copenhague ñetti bal ci dara PSG daan Juventus bu Turin ñaari bal ci benn Benfica daan Maccabi Haifa ñaari bal ci dara Strasbourg ak AC Milan benn ak benn la ñu def Celtic Glasgow ñàkk ci kanamu Real Madrid ñetti ci dara ak génnuk Karim Benzema Leipzig moom dafa ñàkk ñàkk métti ci kanamu Shakhtar Donetsk ñeenti bal ci benn tey bu ñeenti waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom Hertha Francfort Sporting Portugal Tottenham di dalal Marseille bu juróom-ñaari waxtu jotee Ajax Amsterdam di laaleeg Glasgow Rangers Naples di laaleeg Liverpool Atlético Madrid di laaleeg FC Porto. Club Brugge dilaalek Bayer Leverkusen FC Barcelone dilaalek Victoria Plzen Inter Milan dilaalek Bayern Munich jongante xaritoo bi ñu jàppoon ca Autriche ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru satumbar ci diggante Sénégal ak Iran dàq nañu ko yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy ca Slovanie basketball play off ci jigéen ñi nag Duc daal di nay daan na di balok ci jongante retour demi final play off yi nag ñetteelu jongante bi ñu tuddee nag bell des na ko amal ci seen diggante ngir xam finale édition 2022 bi jeexalee ko ak tournoi IFOA A de Sénégal démb nag ci tournoi IFOA bi dafa daan ñii di waa bi benn bal ci dara jamono ji nag tournoi baa ngi amee ci réew Mauritanie Sénégal nag dëgëral na boppam ci place bu njëkk bi ci groupe B bi nag dina daje ak Mauritanie mi dalal xew-xew bi ngir xëccoo ticket bi leen di yóbbu ca final ba Magog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kenn daa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram jàngeen jëf xabaaru faydu bi faydu bi xabaaru faydu beek euh, journalu euh, kadmiya bi ñu cay ànd ak El Hadji euh, Seydina Oumar Cissé Cheikhu Tijaani umdati wa huwa cheyqi wa uddati waxtu wi ñu jagleel xibaaru laylatul katmiya yi ci rajo Alfayda daal dinay jot kon nag auditeurs yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ahlan bikum. Le journal. Omar Cissé. fañ koy dooree ak euh, laylatul katmiya ga ñuy màggal ca fa nga xam ne moo di kër Thierno Hassan dem ka nga xam ne nag dañu dénk lépp lu jëm ci wàllu ko organisation ba euh, di Cheikh Abdoul Baqi Hassan dem daal dinay xam le ne ña ngay waajal bu baax a baax bés bi ni mel moo tax ñu dajale mboolem muqaddamu Thierno Hassan Deme yi lépp ngir waajal bés bi ay kàddoom ñu teewlu ko ak Cheikh Babacar Dieng. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di nuy mbokk yëpp di wax na alhamdulilah ñu ngi ci waajtaay bi ndax la 14 yaakaar naa fi mu ne ci war a des waajtaay bi ci fànn gu nekk nag commission bi nga xam ne tey maa ko jiite moo amee organisation bi ñu ngi ci surtout ci communication bi te Alfayda di ci bay waar woo xam ne waaru yaatu la ak sensibiliser tamit dégg nga de muqaddam yi ni nga xam ne tey daje bi noonu la amee tey muqaddami cerno yi ku ci amul ngant rek tey teew nga pour waajal tamit seen ak ñëw incha allah ak taalibe yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom démb tamit demoon nañ dafa ji CDD ak préfet autorité yi tamit jël nañ ay engagement pour bi tamit lépp beneen bu yokku tamit du wàññeeku incha allah ci gàttal daal moom mboolem nu ñuy waaje daal ñu ngi ci ci waajal gan yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci barab yi nga xam ne ñu ngi leen fay incha allah dañ leen fa dalal ni ki suñuy dëkkandoor yu baax yi nga xam ne ñoom leen dëkk fii ci Medina ku nekk rek mu ngi oote ne këram ubbi na ko pour gan yi ñëw ñu dalal leen fa moom daal alhamdulilah daal yàlla ñu ci yàlla àggale ci jàmm incha allah te yàlla defal ñu ci tawfiq bokk na ca muqaddam ya nga Dramé nekk mu xaddam bu mag ci Thierno Hassan dem la mu xamle nag moo di ne ña ngay waajal bu baax a baax ñoom mu xaddam yi guddik euh, cheikh gi ni mel ci ay ñaan jàng kaamil ak yeneen yi ni mel lépp ngir ñaan jàmm ci réew mi ak àdduna bi. ay kàddu moom it Cheikh Babacar moo ko taataan nga xam ne gis nga maqaama lu mu foor foor foor borom maqaama bu gën koo foor looloo tax na njabootu Cheikh Assane Deme bi nampee ci Cheikh Assane Deme màggal guddi googu mu jaral leen nag lu ne xanaa luñ xamut ak luñ mënut waaye lépp luñ xam ak luñ man mu du seen alal du ci temps du ci kàttan du ci xam-xam la mooy dana leen jaral ñu jox ko Seexu Tijaan ci guddi googu ci bés boobu waaye nag dañ koy waajal buy jublu si duñ xaar ba mu ñëw rek ñu dugg ci guddi gi waaye déedéet bala mooy waaj danañ fàttali ndaw yi fàttali mag ñi fàttali góor ñi fàttali jigéen ñi fàttali soppe yi ñu gu jege ñi ak ñu sori ñëpp ne leen bés bu jara waajale ngi ñëw ci luñ koy waajalee ñu ne nañ tàmbalee ñaan yàlla ndax du aaw silaa ul mu'min ñaan mooy ngànnaayal jullit ñu commencé jàng suñuy salaatul faatihi di jàng suñuy kaamil di jàng suñuy asmaulaay di ñaan yàlla def jàmm ci àdduna bi waaye rawatina ci réew mi waaye rawatina fii ci pay bi di pay Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kenn ku ne daal ñaan gi mën na laa fekk fa nga toog nga xam yëngatu nga ci moo xam yëngatuwoo ci laylatul kadmiya te dampee ko ci Maolana Cheikh Assane Deme ca geneen wàll ga nag moom Cheikh Mouhamed Dramé daal dinay eh, rafetlu bu baax a baax taxawaayu eh, seen kilifa yi nga xamante ne ñoo bokk ci njabootu Thierno Assane dem rawatina eh, Cheikh Mouhamed Kabir dem ak Cheikh Abdoul Baaxi Assane dem ak ñeneen ñi ndax ñoomkat dañ leen di digal waaye lépp lu ñu leen digal ñoom ñoo leen cay jiitu ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng dañ ciy gërëm nag ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa mënoon nañ koo bàyyee taale bi waaye bàyyeewuñu ko ñoom ndigal buñ ko joxee pare du ne dañoo joxe ndigal daal di tëdd dañoo joxe ndigal pare nekk ci suñu kanam ku mel ni Cheikh Mahamadoul Kabir Cheikh Mahamadoul Habib Cheikh Abdoul Baaxi ne mooy jaw dinu kër di jaw eh, doom yi waaye di jaw dinu sax taalibe yi ndax lépp lu ñu war a def Cheikh Abdoul Baaxi moo ca moo cay njëkk moo cay mujj loolu nag la ñuy bëgg xoo mbooleem adduna ne bés boobu nga xam ne mooy la 14 septembre 2022 na ko ñëpp waajal fii ci buntu kër Cheikh laxasa ndem waaye di ci gërëm nag xaasa directeur bu baax bi yéen di Ibrahima gay ak ndawam yu nangu yi nga xam ne lu mu leen sant bu leen santoon benn ñoom ñu def fukk ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di wax rendez-vous bango le 14 septembre ci buntu kër Cheikh Assane Dème fii ci pàkk bu tedd bi dëkkab si Mawlana Cheikh Ibrahima bi xabaaru faydu di ginnaaw Medina Baye Niass ña nga ca lew na seen foofu nag ñoom i tamit ña ngay waajal bu baax a baax guddik cheikh gi di laylatul katmiya laylatul katmiya nag ca leew naña seen képp ku xel dafay daj jëmm ju sell ja borom xam-xam ba kilifa gu màgga di cheikh Mouhamed Cheikh Tidiane Niass ñu gënoon koo xam ci Baye Modou Niass soxna Ngoone Ndiaye tey di ñu xamal kan mooy dëgg-dëgg Baye Modou Niass. Euh, kii di maam El Hadj Abdoulaye Niass mooy maam ja cheikhul islam El Hadj ma Niass bàyyi la ci moom ndaxte maam cheikhu Tidiane may caatu maam El Hadj Abdoulaye Niass al Kabir mooy ki ko meññ moom Mouhamed Cheikh Tidiane Mouhamed Cheikh Tidiane Niass ñu daan ko wooyee waajuram bu góor mooy ka ñuy dàkkantelee ñaan gu nangu ga ndaxte moom la juróom bu jigéen bi di soxna Absatu Gueye àndoon ak Mamalaaji Abdoulaye ca Fass ca atam 1910 jàpp 1911 gannaaw ñaar fukki at yoo xamee ne ñu ngi nekkoon ci buum te doom sosuwu ca la mu bëggoon rek mooy ñaan ca kanam Cheikhu Tidiane doom ju góor goo xamee ne gannaaw gi dina ko ko mën a dàkkantelee waaye mu mel ni ki foofe la ñaan ga nangoo ndaxte gannaaw ba ñu ñibbisee rek ci la soxna si daal di nekk jigéen may gu rëy googee di maam Cheikhou Tidiane mi nga xamee ne moo meññ Baye Modou Niass ci diggante ba muy gane si àddina ca Njaawara alkaali ba ci ni muy làqoo ci atam 2020 Baye du Niass liggéeyal na diine ak faydu liggéey boo xamee ni àddina yépp ñoo ca daal di teg bët mu doonoon kuñ daan wax ne jàmbaaru lislaam la woon ku daan yëngatu la ci wàllu mbay daan na ànd ak ay rakkam di nawetaani ci ay dëkk àll yu bare bare ci diwaanu Saalum bi jot na dem ci dëkk yu ci mel ni Asta kër Ahmad Asta googee nga xamee ne sax ne fala njëkk a nekkee jàngalekatu école arabe lu ni mel ci atam 1972 gannaaw gi loolu dem na ca kër Bakar nekk fa lu jege juróomi at dëkk bii di Thiamène Walo fa la mujjee jàngale ci atam 1985 ba waaye juróom bu góor ba làqoo ci la ñibbisiwaat fii ci Kaolack uuf njaboot gi yore kër gi dellu itam nekk jàngalekat ci biir kër gi comme na mu tàmbalee woon ca njëlbeenam moo du Niass jàng na mboolee mi xam-xam yi nga xamee ne góor yàlla yi dañu koy jàng jàngale na yare na tarbiya na ku amoon jikko yu rafet la te it nag ku teel a xam ay responsabilité am la ndaxte mag ñi nga xamee ne dund nañu ak moom nee nañu jotu te jaar euh, ci ab ndaw. soxna Ngoné Ndiaye euh, shukran xanaa rek ñu jox kàddu Cheikh Ousmane jàkk bi nga xamante ne gën naa dikkaat ci beneen fànn bàyyi moo du Niass mi nga xamante ne mësta lor ci loxoom wala ci làmmiñam njëriñ kese la woon ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Diagne. wax naa loxoom du si alalam du si xam-xam par contre la meññam yi day wax di defar loxoom noonu alalam yi tamit di ko jox nit ñi si jëriñu defaru xam-xamam tam noonu ku moom léppam léppam léppam rek la woon te it ku si nekk daf la jàpp woon boppam te noonu la xamee tam ñëpp tamit bañ na sax bu lay jaaj sax mu nekk sa kilifa sax du la jaaj jaaj boo xam ne da nga siy gaañoo man ndax man dal sama dénte moom ndax man ma daan jàngi chaque jour woon dem këram la jaar xëy dam jàngi boobu maa dam jàngi musuma xëy ñëw nuyu ma ko soog a jàngi benn sujour ma sol kiroot ñii su ko mën a ma dal sol tubay loolu rek la ma xam lan la bëgg wax ma noppi

laa jox da nga tarbee si man joxuma leen digal nga doxi sayru fenn wala nga dem feneen yéen ñëpp joxoñ naa leen topp leen si ginnaaw Ousmane Diack bépp taalibe na buy nekk dakaar boo xam ne sama taalibe nga nekk Dakar Ousmane Diack mooy su jubluwaay bu patee lettre boobu maa ngi moom fii te loolu mooy li nga xam ne mooy suma samp dakaar si àddara ma yor ko ñu daal di nag jox kàddu ki nga xamante ne moo di Moustapha Niass bokk ci comité organisation bi ma ngay xamle ne nag ña nga ca waajtayu bu baax a baax di amal ay réunion ci seen biir lépp ngir fexe ba lépp lu jëm ci wàlluk lekk naan dëkkuwaay képp ku dem Léona Niassène doo ca am benn jafe-jafe ay kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan. kat meegi jàpp nañ ko le 14 septembre incha allah ñu ngi koy préparé comme niñ ko daan préparé rek di organiser ay réunion pour tëddal ay plan yoo xamante ni dina mën a jëmmal bis bi ba mu am réussite comme niñ ko daan defee chaque année rek bu jubsee ñu organiser ay réunion ñun ñoo xam ne ñoo bokk ci daayira bi muy soldaar Baye Modou ak ñi nga xamante ni ñoo nekk suñ mag yi nekk ci daayira bi lu jëm ci wàllu organisation ak nu ñuy dalalee gan yi ak la ñuy def ba taaral bis bi nga xamante ni gan gu ñëw di nga mën a ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te doo am benn problème mooy jëm ci wàllum lekk yi ci wàllum naan yi ci li nga xamante ni foofu la ñuy mooy daluwaay yeeg dëkkuwaay yeeg yooyu yëpp ñu ngi ciy waxtaan di tëral ay plan yoo xamante ni daal dina mën a tax ba bi réussir incha allah rabbi. réunion yi ngeen jot def bëri na. waaw waaw def nañ réunion yu bëri presque chaque dimanche dañuy réunion bu ñu demee ba 4 mai bi des ay un mois ñu koy enseigner def ko chaque dimanche at chaque lundi terewul aussi ñu ngi waxtaan ci suñ groupe WhatsApp match-up yeeg kii nga xamante ni dina mën a gën a rataxal diggante yi parce que nooy gën di demee rek ci journée yi yeneen xalaat di gën di ñëw yeneen stratégie yu bees di gën di ñëw nga di ko mën a waxtaanee ak sa bokk taalibe yi ñu xool plan yi nu mu gën a rafetee rek ñu jëlee ko noonu pour organisation bi pour am réussite si suñ bis bi incha allah. yegg si nañu fi ñu yëkk yëkkatee jotaayu xibaar yi ñu jagleel laylatul katmiya ci rajo Alfayda FM tey ci àllarba ji ginnaaw bu ñu leen gërëmee yéen auditeurs yi ci teewlu bi ñu dig leen daje rek suba ak jàmm incha allah boole ci rek toujours di leen ñaanal fi amaanillaahi cheikhu tijaani umdati wa huwa cheikhi wa uddati yoonu màggal gi dëgmal nañu nag dëkku Cheikhul Khadim ba yoonu màggal gi ak Mamadou Moustapha Mbaye àllarba juróom-ñaari fan ci weeru septembre ci atum 2022 mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu leen di nuyu di leen jàmm yéen ñi nga xam ne yéen teewlu Alfayda FM yoonu màggal gi nag mbirum wér gu yaram lay waxtaan docteur Marie Khemesse Ngom ñëwoon ci dëkk bu sell bi di Touba wax li nga xam ni jël na ko ci ay jumtukaay dajek Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre ci jotaay bu am solo lii mooy gën fës ci yoonu màggal yi mbokk yi bismillah Mamadou Moustapha Mbaye docteur Marie Khemesse Ngom di ki nga xam ne moom doon dénk mbiru wér-gu-yaram ci réewum Sénégal ñëwoon ci dëkk bu sell bi di Touba ngir siyaare si Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides waaye daje ki nga xam ne mooy Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadre président du comité d'organisation ñëw na wax jumtukaay ji nga xam ne ministère am jël na ko ci wàllu màggal gën gaa néew ci ay agent juróomi junni ak lu toftal danañ tew ci dëkk bu sell bi di Touba waaye ñaar fukki ambulance ñu déglu docteur Marie Khemesse ziar ci dispositif sanitaire fii dëkk bi ku nekk xam na ne foog mu sànni si ñaan dispositif bi nga xam ne def nañ ko sëñ bi mooy post médical avancé moom mooy poste santé yi nga xam ne nekk nañ fii mooy centre de santé mooy l'hôpital niveau un deux trois ba quatre mooy bépp kàngam boo xam ne mu ngi fii liggéey mooy environnement de travail bi yëpp bi ñuy dugg nag service d'hygiène dañu duggee parce que dañ ko bëgg def innovation parce que dañ Sénégal lépp loo teg ci faj bu fekkente ne àndul ak prévention mooy saytu fagaru yaakaar naa duñu mën a dem si Mbacke may fàttaliku rek li rëy li nga xamante def nga ko bi nga xam ne Covid bi ñëw na ma fekk la sa kër nga jël chèque deux yow yaa ko njëkk a teg ci suma loxo bii maa ngi ciy gërëm di ko sant da ci ziar nga waxtaan ak ñun nga ne ñu feebar bi naka la demee ñu wax la ko nga ne fekk si nga ñu ci li nga xamante ne moom lay wax mooy ne bu jiyee bu toll noonu amee bu kenn dem bu kenn dikk loolu la ñun ñu wax ci médecine confinement metti woon na lool waaye yaakaar naa ne ni nga ci teel a taxawu moo tax sénégalais yi mën a comprendre ba ndam bi nga xamante di ko am parce que may fàttali rek ne feebar bi jógagu fi sëñ bi Mbàkke ñuy am yaakaar bu baax a baax ci dispositif bi ñu teg wax naa ko ci njëlbeen lu mu am am solo professeur yeeg médecin yeeg sage-femme infirmier bu fekkente ne amul message yoo xamante waxtaan boo xam ne yaa ngi koy def te yaa ngi koy continuer def bu fekkente ne amul yaakaar na li ñu def yëpp day nërmeelu loolu moo tax du ñu guddal di sàkku ci yow ni ko defee si sa papa bu tedd bi xalif bi général di sàkku ci yow ñaan yëkkati suba ba ngoon jot dañ ci def jàmm jàmm ak salaam nga ciy wax sëñ bi dama ne suñu médecine bi du dem kanam bu fekkee jàmm amul ñu ngi sant bu baax bu fekkente ne yow loo yëkkati suba ba ngoon dox jàmm nga ciy wax médecine bi du mën a jëm kanam économie bi du kanam ni développement social bu fekkee jàmm amul sëñ bi ñu ngi delloowaat di la gërëm di la sant ci jàmm bi ngay wax suba ak ngoon ñu ngi ziar di dolli ziar di wax ne xëj na du ñu mën a matale lépp mais ni ma koy faral di wax rek Sénégal du matale lépp mais ñaan yu am solo yi nga xamante yéen kilifa diine yi yeneen koy ñaan moo tax duñu mës a mën a dellu gannaaw donc sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu président de la république ak ci turu gouvernement bi yëpp wax nañ ko yeneen secteur yi lépp lu ñu liggéey rek man dama jàpp ne ñun lañ koy liggéeyal service d'hygiène du mën a avancer bu fekkente ne ndox mi sellul ñun duñu mën a continuer di fekk sans complication bu fekkente ne assainissement bi demewul noonu ñu ngi sant yàlla ba nga xamante ne Sénégal am nañu wax stratégie one health mooy ñun ñëpp dañu booloo wax ne ñëpp dañuy liggéey li ñuy wax une santé te yaakaar naa yoolu kenn gënu la cee ngi lay gërëm di la sant xam naa ne ñaan yi moom doo ko mus a arrêté mais sëñ bi daal sant nañ la gërëm nañ la ak képp koo xamante ne tey ànd nañ ak yow si liggéey bi. jotaay ba Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr moo wax ci turu xarit général des Mourides waaye bu baax ki nga xam ne moom la président Macky Sall yónni woon ci dëkk bu sel bi Touba ngir mu saytu mbir mi lu mel. di rafetlu kàddu yi dégg nañ ko bu baax a baax ndax yàlla def na comme ni nga ko seeree léegi maa ngi njëkkee gisante yéen ci bi nga xamee ne wér-dëgg feeñoon ñëw ci sama kër ginnaaw bi sëriñ bi yónni ma ci yéen ci ndimbal li nga xam doon na ko joxe ma tegoon ko ci seen loxo waaye ci biir wéri digg li mu doon métti métti gisoon nañ ci sa njàmbaar gi ci sa yitte gi ci sa taxawaay baax a baax rawatina lu ci ne ngay wax nam demee te loolu boobu lu jafe la ndax nit ñi boobu wax ak ñoom yombut kon loolu lépp ay taxawaay la yu baax di rafet lu baax itam jéego yi nga xam ne defaat ngeen ko ni ngeen ko daa defee mu jëm ci wàllu gi te mel na na ndax wàllu wér-gi-yaram xam ngeen ne fu mu amut dara du fa taxaw li wala fi di wax naan soxla bu kon wér-gu-yaram mooy li jiitu ci lépp kon nag gis nañ taxawaay bi nga xam ne defaat ngeen ko ci ren ci ndigalu président Macky Sall ngeen def ko àndandoo ko ba yàlla def ñu nekk ci sottatale di ñaan suñu boroom ci barke Serigne Touba ñu àgg ci ak te am ci ndam lu ëpp li ngeen ci daa am ñu leen di sant bu baax. lii moo nekkoon yoonu màggal gi di leen ñaanal jàmm di leen dugg daje allah ëllëg ak jàmm. li ci yéene kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci euh, yéen i kaay yeeg El Hadji euh, Seydina Omar Cissé. Euh, marhaban bikum inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna imaam Alioune Badara Ndao wàcc na liggéey niki démb ca hôpital bu Fàndakaaru ñu jébbal ko boromam ca diiwaanu Kawlax ndangaan quartier ba ñuy wax ngaan Alassane ci bi muy am juróom benn fukkeel bi at ak ñaar ba tax laa dépêche yéene kaay ne umma islamique bi ligue des imams ak prédicateurs yu Sénégal jege ñaala yi xarit yi xam di jàmm yi fa ñoo yeewoo ak naqar ak tiis ndax ki fi bàyyeekoo kilifa gu mag la woon lii yéen kaay na ko jàmbaar la woon alerte yéen kaay na ko mu mujaahid la woon shahid la dundam gi yëpp ci xeexal lislaam jàng ak jàngale la ko jeexal source a na ko ku doon défendre lislaam bañkat ñeme dëgg nit ku baax te jullite dem na libération na ko moo taxit ngaan alasaan ña ngay jooy seen imaam ba naka noon ndaalaan maalik dëkk ba mu fekk baax l'observateur di ñu xamal projet bu mujj ci suqali ñoŋal nekk ni askan wi ak taxawu diine feebaram ba presque juróom benn weer lañ ko nemmeeku ba ci korite gi sax ndeysaan ba muy xutba jàppale ko yóbbu hôpital Fann mu nekk fa coma maanaam nelaw gu àndut ak yeewu biñ ko bëggee yóbbu France faji ko ay mbokkam fa bañ le réveil kaay ne suñu waxante dëgg nag imaam Aliou Ndaw mi ngi am jafe-jafe wér gi yaram ginnaaw bu mu génnee kaso bañ ko tëjoon ca 2018 a mel ni ko naan imaam Aliou Ndaw kay liñ ko def fa ñaaw tëj nañ ko kaso presque ñetti at tuumal ko ay wàllu terroriste te tuumal yañ ko tuumal yoon fa ko mujj setal na ko demal sénégalais yi gërëm nañ ko delloo nañ ko njukkal ndax bi mu feebaree nekk fann bés moo taxit démbu Kaolack mbooloo mu bari foo ko natt weesu ko ñoo ko gungee biñ koy jébbal boromam alerte yéen kaay na ko kilifa diiney Sénégal yi tamit ay délégation yu bari demoon nañ fa bokk na ca délégation xalifa général des Mourides Serigne Mountakha yebal na leen ca Kaolack ngir ñu wutu ko fa leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne réewum Sénégal gaaw suuf siñ fii caxat-caxatee di ko jaay fa bari ba jéggi dayoo turbine yéene kaay ne ci jamonoy Ablaye Wade ba ci Macky Sall mii suuf si yëpp pàccoo nañ ko jaay rawatina ca filaawoo ak yeneen i barab yoo xam ne ay kilifa yi nekk ci nguur gi ak ay tubaab ñu bàyyi ko bitim réew lañ cay tudd yéene kaay bi na maam booy jaawo directeur domaine moom it tudd nañ ko ci mbiru suuf ca géejawaay suufal hôpital la Dantec ba tey coow li pënd bi wuree gudde si ko xamal mu toll ni waa sayes yi fa ñuy dakkal njaay moomu fa ñoo xotti ba boole ci di tëkku nar a boycotté ci wàllu université yi ndax lañ wax na lañ fay tabax affaire caaxaan-caaxaan la ñoom ànduñ ci info yéene kaay na SAES kay ak université bu ndakaaru fa ñoo feree ne état taxaw seen kanam na leen xalaa ma ndiir bàjjoo xalaa xalaa jaay suuf si caxat-caxatee gi ngeen nekkee fa hëpp dakkal leen ko ngir yàlla le quotidien yéene kaay moom di ñu xamal xeex ba xam ca yeewi askan wi ba tey ci xëccoo kan moo nar a jiite assemblée nationale Barthélemy Dias nag ma nga ca pexe mi mujj de lépp moom Walfadjri yéene kaay mooy diggante PS ak APR jamonoy santas la lañ nekk l'observateur na ko plan wu Benno Bokk Yaakaar fi mu toll mooy fexe ba ñàkk ay député ba kenn du rëcc ci ñoom dem fekk ku jégi ci wote président assemblée nationale bi moo tax fañ leen a jël ñoom juróom-ñett fukk ak ñaar député Benno yi yóbbu sali week-end critique kaay ne falu bureau assemblée nationale bii fa nar a critique assemblée bu ngeen mës gis moo fi nar a xam ak i problème Awa Gueye moom door na xeex ba ngir wàllu Abdoulaye Wade ak Karim seen ak ñëw du yomb de ah masaalikul jinaan Wade la mu déggoo woon ak Macky Macky dara la ca defut ci kanam Khalifa ba ba tey yéene kaay bi na del si waatu tamit Karim Wade boo moytu mën naa jaxase carte ga ah, moom mooy jiite xam ngeen ne ñu fi fekk lu leer ba mel ni jant tusubaar mooy ne réewum Sénégal docteur fajkat yi nga xam ne fañ leen di yóbbu ci yoon di leen teg loxo ndax njuumte luñ def ba ñuy faj fi mu toll nii loolu fa bëri ci réew mi de enquête yéene kaay na li ni mel nag xam na fu mu baax waaye xam na fu mu bon de léeg si ko yéene na ko man moom faa lay wax fi mu bonee yaw seetal mbiru Mami Diallo ma faatu ak doom ja ca Kédougou léegi waa kër docteur bañ leen tegee loxo lu bon lam jural askan wa mooy seen bolog ba ñuy opéré fañ koo tëj juróom benni fan ñu ne déetawaay juróom benn soxna yu wanoon lor waroon a wasin fa ñu mujj yóbbu leen Tambacounda ñetti ña ca yoon wa laata ñu yegg ca lañ xam doom ñaari nee na tutiya fa ñoo judd andiwuñ bakkan ñetteel ba ma nga ca diggante dund ak dee yéene kaay bi ne syndicat docteur yi SAMES gën nañoo taral seen xeex ba nag ndax fa yokkaat ñetti fanu geraw te mën nañ ko tóllanti soxna ya nekk Kédougou mel ni kuy wax ak docteur yi naan hëy nañ waxante dëgg ni ngeen ñuy def ñun soxna yi ci hôpital yi fa métti fa ñaaw fa jéggi dayoo ñàkkal fayda ah seetaan ba nga lor wala ñu lor la far bu ñu kenn rey ak wax ju bari bés bi yéene kaay ne hée kee dugg nag seen soxna yi fa ñoo yàgg a bañ de moo tax fipp nañ de ne seen boolu muñ fa fees li fees dell Sénégal mooy jàmbat ci dund gu gi sénégalais yi sonn nañ jëwriñ ju ñu dénk nag wàllu njaay mi asom jaata nee na moom mënta nangu li ñuy bàyyee ci réew mi ko ko waxee ca direct news mel ni ko naan ko waaye lii xeñ fi mu ni nag moo njëgu dund gi fa nar a wàññeeku ci ay jafe-jafem wàññeekuwul waaye fa yokk mooy air Sénégal kër ak roppalaan gi fay waaja a daanu de tas gaare ba tax njiitéram Macky Sall ma ngay nas ay pexe ngir suqal leen lii yéene ak 24 heures ñoo ñu ko xamal le were journal ne man faa jaaxle kat yi fa ñoo am ay jafe-jafe ci seeni entreprise waaye fa ñoo seetlu ne syndicaliste yu mag yi ngog yi central syndical bi fa ñoo noppi ne miig seetaan seeni liggéeykat te ñoo leen war a taxaw ah yow liggéeykat ya nekk expresso dem dikk seen o gars a seetaan li ko waral nag mooy ñoom syndicaliste yooyu ñii fañ leen a nommé ay PCA ñee ña nga ca conseil économique ak 600 millions yu leen état bi di jox subvention mbaqus yu neex yooyu moo tax déggoo ci benn secrétaire général buy taxaw liggéeykat yi Guy Marius Sagna moo mujj di def seen liggéey te mooy taxaw gaañi xam nga ne loolu fa ñaaw tàggat yaram jongante yu nar a saf tey Inter Bayern Naples Liverpool stade yéen a kaay ñi ko xamal record yéen a kaay ne Sadio nag tey xanaa dana dugal ñaar fukkeelu bii ak juróom ci Ligue des champions nag démb fa mbuqi ñaar ci benn Chelsea moom fa bett ñu bari fañ ko mbuqi benn bal ci dara Man City xaw tuuti ko doon mu ray yi wëlbati ngàdd rëkk tut mu dee waaye équipe bu mag a mag bi nag Real Madrid fa fekki Celtic di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñetti bal ci dara gis nga ren jii nar nañoo tasati équipe Sadio Mané nag tey ñu ngi koy ñaanal ndam te mu dugal lii ci eh, yéenikaay yi eh, Shukran El Hadji eh, Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen di faxe woon ci wàllum déglu gi jaajëfal Serigne Moussa Kane ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye nag duñu fàtte waa rédaction rédaction ak waa production ci njàppandal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti taw féex ak taysiir jàngeen jëf. Le journal Ngoné Ndiaye Reine